président de la république moom ci boppam ne ma faw nga doxantu ba foofu gannaaw boo jógee Colobane waxtaan ak ñi fa ne waaye waxtaan ak Sénégal yëpp ndax faw rek ñuy communiquer ak sénégalais yi ndax sénégalais yi dañoo wóolu son excellence le président Diomaye Faye def lu musul am ci Sénégal walla sax ci Afrique mooy dès le premier tour opposant ñu fal ko ci score biñ ko falee ah du ma ne musul am ci Afrique waaye néew na peut-être loolu du li am solo te ci base ban lañ ko falee base u jub jubal ak jubbanti base u mooy moom suñu bopp base u patriotisme waaye base u fexe ba alalu réew mi ñu koy delloo ci loxo doomi réew mi moo tax bi ñëwee ba léegi dafa am liggéey bu ñu door liggéey boobu nag faw mu ànd ak communication ma bëgg sénégalais yi di fàttaliku toujours Sénégal dañoo yàgg bëgg am nguur gu jub nguur gu maanu nguur gu jiital ay valeur ak ay principe nguur guy taxaw ak di liggéey uniquement pour askanam te du ci seenu dara ma jàpp ni nag yàlla may na ko Sénégal ci jamono ji te mu may ko ci jamono joo xam ne dañ ko soxlawoon loolu bu amee nag Sénégal yëpp dañoo war a ànd ak nguur googu suñ ko joxoon benn dañ ko jox juróom ndax bu baaxee Sénégal lay baaxal du baaxal président Bassirou Diomaye Faye kon ci loolu bi ñu ñëwee ba léegi ci jub ak jubbanti am na yu ñu sumb yoo xam ne Sénégal a ngi ciy teg seen bët yàq bi ak yàqute bi ci biir réew mi egg na foo xam ne sénégalais yi xamuñu ko waaye bis bu ne mu am tuuti luñ ci ñamal lu leen ci ñamal dina am lu bëri luy feeñ ci fan yi di ñëw ak weer yi di ñëw gis ngeen ni lancé nañu programme audit yi jamono ji inspection générale des finances cour des comptes ak a ak ñeneen ñi nga ca fu bëree bëree bëri am na lu ñu yor ba pare ak lu ñu téye ba noppi lañu bëgg sénégalais yi mooy am na ñu jotoon a ñam ba gis ko am na ñu leen commencé mosal ñu koy gisal seen bopp ci anam googu lañ fi teewee ndax bërëb bi ku ko gis ak ñi ñu ci fekk lee may gis ne leen rafet na lool ci jamono tàngoor gi ndakaaru lii rek lañu am mun a ñëw amaana ñëpp amuñu doole boo xam ne mun nañ taal clim journée bi yëpp wala taal ventilateur bi journée bi yëpp waaye nee ñu nekkee ci biir ndox mi di féexal seen xol di ci boole nag tàggat yaram loolu dafa am solo bu ñëwee nag toog gis ni bërëb bi yëpp nag lu ko doolee fële ci gannaaw ba fu mu sësee li ko doolee ci kaw tali bi ba ci suuf dagg nañ ko def ko lotissement ba jox ko ay nit li muy firndeel mooy <coughs> buñ ci jógul fii leeg ay fan kenn dootul mun a am accès ci bërëb bi li ma bëgg a foofu ci gàttal mooy biñ ñëwee commencé di saytu mbiri ci la tombe ci ay lotissement yoo xam ne fii nii ñu ngi ko def novembre novembre 2023 xanaa ku yor nguur di dagg di dagg di dagg ñu naa la li ngay dagg ëpp na ba mu des ñaari weer wala ñetti weer nga war a dem rawati nag bërëb bu mel nii nga war a maandu nag bako fa waaye ci tableau bii ma leen di woon gis ngeen ni fii ñu nekk nii depuis ci kaw ba ci suuf ci tali ba ci suuf xam nga lii mooy terrain football ci kaw lépp dagg nañ ko jox ko ay nit ñii ñu jox leen 5000 mètres carrés ñii 3000 mètres carrés ñii 2500 mètres carrés ak yu mel noonu muy lu doy waar ndax fii en principe ci domaine public maritime bi la domaine public maritime nag bu laal la tudd même procédure yi nga koy jaar pour déclasser ko sax compliqué na compliqué boo xam ne waroo ko mën a laal bu doon sax ci te titre état la nekk bu doon dañ ko déclassé mu nekk titre état waaye waaye xam nga ni lii dese Sénégalais yi ci mënu ñu nu mën a am accès à la plage nga war koo mën a bàyyil Sénégalais yi ndax fii koo fi jox 5000 mètres carrés dafa mel ni jox nga ko 10 milliards ndax ñi ngi jaay boor yi mètre carré deux mille deux millions de francs un million huit cent deux millions. <coughs> kon boo fi jox loolu gorul yattul wóobuti ko jaay ko ay nit yoo xam ne projet hôtelier la am lekk na ci cinq milliards te gorul yattul lii nag firnde bu ndaw rek bu ngeen gisee ñu lancé li ñu lancé ci tout le littoral bloqué travaux yi ñuy def yëpp mettre en place une commission. te commission baa ngi def liggéey bi mucc ayib te ñu koy door nag ba mën naa ne semaine passée lii xamuñu ko woon donc lii dafa ñëw yokk ci bu ñu gisee loolu teg commission boobu muy def liggéey bu mucc ayib ba nga xam ne ci jamono yi di ñëw dinañu livrer aux Sénégalais les conclusions lañ ca bëgg wax ak sénégalais yi mooy nañu yore woon senegal ñaaw na ba fu ñaaw yem baadoo la amu fi woon àq amu fi woon yelleef waaye les mêmes ñoo doon wër diggante suuf si ressources naturelles yi muy or bi di pétrole bi di euh, zircon bi phosphate bi ak ressources halieutiques yi muy géej gi nga xam ne la ca nekk ci jën lépp niñ koy yore woon mare loolu mooy suñu combat nag ñëw bi fii prétexte rek la mooy suñu combat ne la ñu déglanteeg sénégalais yi mooy Sénégal dañ ko delloo ci loxo sénégalais yi te mu war a dem ci fànn yu yaatu loolu moo tax soo excellence le président ba Bassirou Diomaye Faye te mu wax leen ni saa su gisee yu mel nii man boo ko xoolee sax dama koy yërëm ndax xam naa ni xolam dina métti ba fu métti yam moo tax mu ne ma nanga dox lu mel nii parce que du cëru président léeg muy wàcc ci yu mel nii su du woon loolu mooy wàcceel boppam ñëw wax ak sénégalais yi gis ngeen problème nguurkat bi mu amee. moom moo wàccal boppam dem ba Thiès ba Mbourkat ba mu jógee joxe na ay ndigal ba jël récupéré nañ fa lu ëpp soixante dix mille parcelles yoo xam ne ay politiciens ay fonctionnaires ñoo ko séddoo woon loolu moo xew ci réew mi ñuy dalal xelu ñëpp nag ni président la république jox na ndigal ñu dakkal lotissement boobu ci loo xam ne amul négociation amul am naa droit am naa titre lu Sénégal yëpp moom. bu dee nag la ñu joxe woon ba tey nit ñi di fa tabax wala tabax nañu ba noppi la ñuy xool naka la ñuy def ba fépp foo xam ne waroon na permettre sénégalais yi am accès à la plage ñu delloo ko sénégalais yi fu melul noonu it ñu jàpp ni bu dee ñëpp dañoo bokk dara mu am ko jaakaar ni moo ko gën a bëgg nit ñi ba akki ko war naa mun a fay taxes yu cher. Mm-hmm. pour compenser ñi ca des. Mm-hmm. liggéey googu la ñu nekk te noonu lañ koy doxalee ci fànn yëpp nag ci ressources naturelles yi du foncier urbain bi kese. waaye bés bu ne ñu yégal ñu ay problème yu am ci foncier rural bi ci àll ba ci tool ya li ñuy ñaan sénégalais yi nag te président wax ma ma waxaale ko fi mooy seet nañ ñu bëri nag dañuy bëgg a fajal seen bopp ñu bëri dañuy bëgg a fajal seen bopp léeg nit ñu jóg ne ñoom ñooy dem nangul seen bopp gis nañ ne xew barki ba ci ICS nga xam ne population yi ñoo jóg dem baare bi loolu du seen cër bu ñu dégg tam ñu ne nguur gu bees ñëw na te nguur googu nee na dafa bëgg lépp jaar yoon na jub ñu ne kon am nañu prétexte pour defal suñu bopp déedéet ça c'est des prérogatives régaliennes bu loola amee nañ ko signaler nañ ko war a signaler buñ ko saytoo ba xam ni lii tegul ci yoon lañu ci war a def nañ ko def mais du population mooy jógal boppam ne maa ngi dem régler sama bopp loolu it mënuñu ko nangu parce que day jur li ñuy wax anarchie mooy jaxasoo kon ñi ngi ñaan ñëpp. muy ci wàllu ressources naturelles yi muy ci wàllu suuf si ak beneen fànn bu mu doon ñun de état bu am ubbeeku la ñu ngi déglu ñëpp bu ñu saisiré ci ay situation yu am dinañu déglu ñëpp nag Colobane ba Colobane ba ma jógee déglu naa riverains yi déglu naa commerçant yi ñu déguerpir déglu naa préfet donc loolu la ñuy doxalee bu ñu paree dinañu xool li nga xam ne mooy jaadu moo jaadu te mooy yoon ñu doxal ko kon ñuy ñaan population yi ñoom it ñu bañ a di essayer régler seen bopp ñun lu ñu yëg rek nañ ci def liñ ci war a def moo tax président ni fii amul droits acquis amul am naa sama bàyyi mënuñu permettre nit ñi parce que am nañu moyen wala ñoo yoroon nguur di séddoo loo xam ne lu Sénégal yëpp war a bokk la moom ko war cee mun a accéder à tout moment kon ñu xam ni ci liggéey yooyu la nguur gi nekk. système nag boo ko songee faaw rek mu am ay résistance parce que ay intérêt nga song ay nit yoroon toogoon ci ay avantage la moo tax lappi-lappi bi bëri coow li bëri waaye lu mën a fees suñu bët amut li ma waxoon ku fi jël loo warut jël da nga ko delloo askan wi parce que alalu mbooloo bàyyi ko fa la tudd mhm. waaye nag président sant moom wax ak askan wi yëpp dafa am loo xam ne du xeexu président Bassirou joomaay kese du xeexu premier ministre Ousmane Sonko ak nguuram ak gouvernement am ñun li ñuy liggéey dañu bëgg li ñuy wax portage bi mooy ñi ko war ñu ko war a njëkk a yenul seen bopp sax mooy askan wi ñoo ko war a njëkk jëlal seen bopp moo tax du ñun ñoo xam ne dañu tëju ci ay bureau di réfléchir si suñuy plan suñuy programme sénégalais boo laaj lan mooy sa programme xamu ko déedéet ci fan yu néew. lañ doon bind ci référentiel bu bees bi nga xam ne moo war a tënk juróomi at yi ñu jëm waaye lu ko wees fii ba 2050 li ñu bëgg ci Sénégal dina pare dinañu dajale ñëpp waxtaan ceeg ñoom rawatina nag jeunes yi la wax jeunes yi ñaar la ba njëkk mooy patience àdduna xëyul sotti ci benn fan ñoom ñooñu wóolu ba dénkuñu ñetti weer lañu defagum est-ce que fa ñu teg fa ñu teg suñu tànk foofu la am déet loolu la ñu war a njëkk a xool ñuy dem ndànk-ndànk bu soobee yàlla fañ jëm sénégalais bu ne dina gis boppam ci la ñuy liggéey leen di sant mooy ñu bañ a xeeb dara te it toujours ñuy laaj wal la ñu war a njëkk a xool ñuy dem ndànk-ndànk bu soobee yàlla fañ jëm sénégalais bu ne dina gis boppam ci la ñuy liggéey lañ leen di santiit it mooy ñu bañ a xeeb dara te it toujours ñuy laaj seen bopp lan la ñu war a mën a jëriñ suñu askan ñun parce que li yàq réew mi yëpp mooy li tubaab di wax égoïsme ñi fa toogoon nekk fi jàpp nañ ni bu buñ la dénkee ñu bañ a xeeb dara te it toujours ñuy laaj seen bopp lan la ñu war a mën a jëriñ suñu askan ñun parce que li yàq réew mi yëpp mooy li tubaab di wax égoïsme ñi fa toogoon nekk fi jàpp nañ ni bu buñ la dénkee sa yaaya liggéey comme ni ñuy wax sa ndeye liggéey donc danga nga war a teral sa bopp tedd teddal teral sa say mbokk te te ci ban anam nga koy defee du salaire bi ñu lay fay. buñ leen woowee ñi fa toogoon nekk fi jàpp nañ ni buñ la dénkee sa yaaya liggéey comme ni ñuy wax sa ndeye liggéey donc da war a teral sa bopp tedd teddal teral sa say mbokk te te ci ban anam nga koy defee du salaire bi ñu lay fay de waaye alalu réew mi ngay teq suufu réew mi ngay teq oru réew mi ngay teq ak yeneen ak yeneen loolu moom moo yàq réew mi kon le don de soi pour la patrie bi ñuy wax. man de jàpp naa ne mi ngi ci man jàpp naa ne mi ngi ci ñu bëri ci ñuy àndal waaye dafa war a doon loo xam ne dafa war a nekk ci sénégalais bu nekk ñam ngeen fi ay loxo gis ngeen li mu jur gis ngeen ay loxo yu yees yu ñëw te gis ngeen jéego yi ñuy teg bis bu ne ñu nga ci liggéey boobu newoon nañu duñu mën a wàññi dund gi wàññi nañu dund gi te mën naa leen ne démarre commencement rek la bu soobee yàlla parce li suñu mbibét mooy ñu dem ba suñuy tudd réew yi gën a yomb ci at ci Séné ci Afrique. Mhm. ci njëkk ñu tudd ci Sénégal balaa ñuy tudd keneen. Mhm. suñu xëyee suba ba ngoon jot benn yitte lañu am mooy askanu Sénégal newuñu fi pour jouissance wala pour lu ñuy amal suñu bopp yàgg naa wax ni lii ñu jiite samay ministre ngi taxaw ci ñoom laa ko commencé wala ci sam sax laa ko commencé mooy lii ñu jiite sacerdoce la. mooy mission la bu ñu yenu ñun ñun ñoo taxaw ci kanam Sénégal yi ne leen dénk leen ñu kenn fekk ñu suñu kër forcé ñu ne génn leen kon bu ñu defee loolu ba dénk ay ndaw yu bëri ñàkk seen bakkan ñun waratuñu lekk waratuñu naan waratuñu nelaw te waruñu am dërëmu askan wu ñuy d'accord mu dugg ci poosu kenn ci ñun ci loo xam ne lewut loolu la ñu mën a digganteeg askan wi waaye li ñu xaar ci askan wi mooy ñoom nañu def bloc nañu def bloc fii rek ñun fi ñu war a teg suñu tànk ñu ngi ko fay teg na askan wi def bloc bu leen woowee ci liggéey woo leen ci suñu grand programme ñuy lancé na askan wi yëpp jógandoo ndax askan mooy defar réew mi de donc loolu moo taxoon ñu jaar fii te di leen jox garantie ak assurance niñ ko fas yéene def feneen ak feneen ba ci nit ñi ne ci kaw gi tañu nangu seen suuf ci lu dul yoon ñu leen di garanti ni ñun askan bi lañ fi nekkal priorité bii mooy intérêt askan wi te bu soobee yàlla bërëb bii nii mu mel nii nit ñi di fi mën a ñëw fexu du ñu bàyyi kenn mu def safaan waaye mieux sax encore incha allah ministre euh, euh, urbanisme ak aménagement du territoire mi ngi nii bi ñuy ñëw gis nañu fi ngay jaar ba egg si fii monsieur le ministre dama bëgg un programme d'urgence pour que ñu aménager bërëb bi ba mu doon ba mu gën a ba mu gën a yemb ba mu gën a méngoog bërëbu feexlukaay te ñu jox garanti ni bu soobee yàlla euh, euh, lañ ci mbébatoon ñoom ba def ko ci xaw ma ku ci def alal wala ku ko ci deful ndax yàgg ngeen ñu dégg nag ñuy wax gars yi ne leen bàyyi leen littoral bi te ku fi def sa alal yaa tooñ sa bopp mm-hmm. yàgg nañ ko wax démb tey doog mm-hmm. kon lii moo ne woon message bi moo waroon ko andi ci turu son excellence le président Bassirou Diomaye fay ñu leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum. jox benn contribution sur la migration à Abass